gis may ma réew bu koy liggéey nit ñi di def di liggéey réew mi muy avancé ñuy def ay effort yu rëy ñuy amay résultat non neexaayu émission rek jarul ñu cooy wax. parce que waaw déglu rek dama lay wax non le secteur de tey le secteur non waxuma ne amul problème xam nga waxuñu amul problème mais problème yu met yu fi amoon yu njëkk bi problème bi gënoon a rëy mooy parents yi xamuñu ndax année bi buñ ko commencé dinañu pare am duñu pare. xamuñu ndax quantum horaire bi bu ñu jàngalee xale yi dinañ jàng ba pare. amoon nag loolu kan problème quantum horaire bi disparaître na chevauchement année académique yi ça disparaît. non xam nga da ngay différen da ngay différencier euh, secteurs yi loolu université la ak formation. léegi non même même même même bii nii on a eu une crise au mois de juin vous avez dû taper sur la table. j'ai pas tapé sur la table. Non. On a eu de juin. Non, on pas une, crise politique. Non. Attends. Au mois de juin. xam nga Maïmouna euh, defe naa sur le secteur de l'éducation des efforts importants ont été faits et il y a eu des tentatives politiques de déstabiliser l'école et ça n'a pas marché. Alors que ce secteur-là était très sensible à la situation politique. Mais daaw on a vu que le secteur de l'éducation avec toutes les tentatives nga xam ne nit ñi dañoo def ay déclarations nañu taal école yi ay nit jóg sax jéem a taal école yi on est parvenu à sauver l'année scolaire sans rattrapage le quantum horaire je défie qui que ce soit de dire que l'année dernière l'année dernière 2022 2023 am nañu problème quantum horaire ci éducation nationale bu Sénégal amul amul benn deuxième aspect tey Sénégal suñu système éducatif ñu ci àdduna bi lañ nekk mënuñu ñëw ne dañuy def lu nga xam ne kenn deful mais ci en terme d'avancée sur la qualité en terme d'avancée sur euh, les transformations appro appropriées bokk nañu ci réew yi ñu gën a ràññee ci Afrique ak réew yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi waxuma rek résultat yi président Macky Sall def fii mais dafa bokk ba tey kuy jël initiative sur dans le secteur de l'éducation parce que ay am nay organisation yu internationale yu nga xam ne dañuy jël ay initiative bëgg ay président porté ko parce que dañoo am ay résultats sur ce secteur là su fekkee wàllu amélioration cantines euh, scolaires yi bu fekkee innovation la bu fekkee ne atteindre les objectifs de de renforcement Euh, des ressources humaines su fekkee euh, sur le numérique la ku jël initiative yooyu te yooyu bokk na ci yenn yi nga xam ne moom mooy axe yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a transformer école temps yi da ngay bëgg président Macky Sall ñëw fekke ko mbaa ndawam ñëw fekke ko bokk ci initiative yi ma ne loolu bu ñu koy wax fii Sénégal bu ñu ko defee bu ñu ñëwee fii Sénégal bu ko nit ñi wax waxuma rek ñu gëm ko mais dañoo war a taxaw xool lu tax loolu ndax lu justifié la ndax am na retour ci biir te tey man ak les syndicats tey man ak les syndicats de l'enseigne de l'éducation nationale de l'enseignement moyen secondaire ñoo nekkoon di discuter de discuter sur le devenir de l'école et sur les conditions pour que la situation politique national mënul am impact ci système éducatif bi defe naa def nañ ci ay jéego yu mag de par et d'autre on a soulevé les questions on s'est parlé on s'est entendu et suba dinañu finaliser benn mënuma wax protocole d'accord parce que ay entente la ci yenn affaire dinañ finaliser benn document bu ñuy signé ñun ñëpp nga xam ne ku ci nekk teg nga ci say préoccupation dinañ am stabilité euh, jàpp naa ne li ma gis ak li ma wax ni tey attaques yi waxuma duñu ñëw mais defe naa asseoir nañu les conditions yi nga xam ne bu ku nekk taxawee sa taxawaay bi nga war a taxaw gouvernement du Sénégal taxaw taxawaayam bi mu war a taxaw te jàpp naa ne dinañ ci taxaw parce que yooyu instruction laa jot ci premier ministre moom laa jot ci président de la république syndicat yi tamit jàpp naa ne ni ñu taxawee ñëw wax ñu discuter ñoom tamit dinañ nekk ci conditions yooyu ñu jàppalante bu amee ay problème ñu créer les conditions pour dem régler ko defe naa bu ñu taxawee ci loolu attaques yi ñëw de l'extérieur pour déstabiliser l'école l'école xam nga xam nga man xam man li may là où je mets le doigt mooy euh, budget bi yokku na yéen a ngi organiser wu yéen a ngi réformer waaw a ngi euh, fixé ngeen sax dernièrement nga xam ne amoon na euh, inflation les les les kii la les les kii d'inscription les frais d'inscription génn ay arrêté Euh, lancé ngeen euh, beaucoup de réformes c'est vraiment bien monsieur le ministre mais xam nga nos gouvernants ñoom dañuy nekk souvent ci offensive de charme euh, politique et diplomatique c'est pour pouvoir se mettre ici et dire que président Macky Sall li mu ci def du temps de Abdoulaye Wade on disait que Abdoulaye Wade monsieur xam nga nan la ñuy apprécier ban charme diplomatique la bu ma taxawee <laughs> fii Sénégal xanaa yow kon sa sa sa sa jour xanaa kon yow sa télé étranger lañ koy seetaane seetaane wuñ ko fii non bu dee sénégalais yi ñooy seetaan sa télé mu ngi taxaw li ñuy wax ni li ñuy wax li ñuy wax ni non may mun a non c'est pour ngeen taxaw ci ay tribune ne le Sénégal a fait ça le Sénégal a fait ça non nañu bés bu tool bi may mun a sa tribune sa télé tribune la pour l'étranger ou tribune la pour wax ak sénégalais yi. c'est une tribune pour parler aux sénégalais et vous utilisez des tribunes ailleurs. pour non. vanter les ah. investissements. Ah. du gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'éducation loolu laay wax. offensive non, non, de charme diplomatique non non amul benn offensive xam nga fi ñu toll nii dangaa xamul système bi ni muy ni muy fonctionner moo tax. ngay wax non non déedéet déedéet xam nga boo waxee ba pare dama lay wax ne système bi nan lay fonctionner may mun a. xam nga noo partenaire au développement la ñu ngi fii. dañuy càmbar. déedéet ñu ngi fii ci biir réew mi di suivre ak ñun ay programme ñun ñuy dem foofu di fa wuti ay moyens pour renforcer le système ñuy ñoom ñuy teg seeni critère ñun ñuy remplir critères yi di ko def ñuy am ay termes de référence am des critères d'évaluation ñu koy évaluer suñu système ñuy xool naka la ñuy avancer sur beaucoup de question ñu koy évaluer ñuy gis ne système baa ngi évaluer ñuy prétendre à d'autres à d'autres à d'autres ressources au niveau national d'ailleurs mu ubbi foofu parenthèse sur le plan budgétaire du gouvernement du Sénégal effectivement répartition yi sorewul li nga wax 21 euh, pour cent euh, d'investissement mais les investissements dans le secteur de l'éducation ëpp na loolu parce que am nañ investissement yu nga xam ne ñu ngi koy def ak suñu partenaires yi am nañ investissement yu nga xam ne ñu ngi koy def ak ay projets yi nga xam ne c'est financé par des banques étrangères ñu ngi am nañu ay yeneen projet yu nga xam ne boo leen ko ci doolee ah vraiment il faut faire on a d'autres efforts à faire mais man jàpp naa ne effort yi ñuy def loolu il faut ñu nangul ñu ko tamit parce que tey man damaa jàpp ne loolu ma mooy effort yi ñuy def par rapport à nos ressources yi ñuy def ci système éducatif bi vraiment c'est au-delà des capacités ouais, du gouvernement du Sénégal loolu tamit dañ koy nangu cela veut dire que le président Macky Sall li mu wax que le capital humain c'est quelque chose d'important dans nos objectifs dans sa vision et dans nos objectifs de développement je pense que c'est une ah, réalité ah, au Sénégal ah, maintenant euh, li ñu il faut que état am na jéego yu nga am na yu def am na jégo yu am na jéego you rëy yu ñu war a gën a yokk objectif yi dafa war a gën a level parce que on parle d'un pays qui doit être émergent si benn génération. waaw xam nga donc fi mu woon. foofu fi ñu jóge woon c'est situation de sinistre réel tey ñu ngi ci situation bu nga xam ne on est en train de on a créé les conditions pour def aller vers le développement et euh, créer des projets de développement aller vers euh, l'émergence